asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna waa Ngondal ñu ngi leen di nuyu niñ ko daan defee démb ak barki démb ci nuyoo daan ko defee noonu démb ak barki démb ci ziar leen noonu lañ koy defaatee nii rek nit daal lu mu jàpp mu jig ko bu mu ko bàyyee tu mukk kon senegaal nuyu nañ leen ziar nañ leen baal leen àq di leen baalu àq di leen wax nag ne seen émission ngonal moom du fi mën a jóg ndax sénégalais yee ko moom sénégalais yee ko bëgg en sa sénégalais yee ko taamu ñuy sant yàlla nag tey boo xoolee àdduna bi wala Sénégal gi plateau yu bëri ngonal la rek te defe naa ne ginnaaw ñun 2013 ba léegi ñu ngi koy def c'est parce que dafa baax. bu baaxu woon kenn du ko roy donc sant yàlla alaaji saa sa san sa rafet na sa toogaay jekk na lool car macha allah waaye lii nga sol daa mel dama koo xàmme waaw waaw lii xàmme naa ko de foo ko xàmme digoon digoon nga ma ko yow mii waaw ne woon nga danga ma koy may kon dinaa la ko jox ah, moo gën a rafet de kon dinaa la ko jox. nuyu naa la ziar naa la. <laughs> waaw alaaji góor a nuyu naa la. sama waa ji. Baro nuyu naa la. saa waaw nga ni. waaw ma leen di nuyu yéen ñi ma fekk ci plateau bi yëpp. di nuyu. Euh, fekkoo ñu fi yéen ñu ngi bokk ak plateau. waaw mais fi laa leen fekk. tamit déedéet non non non on ah, nous a découvert ensemble kër yi kër gi alaaje ko moom de. ak ak yow yow yaay yi de. waaw waaw waaw waaw yow ngay ruube. waaw man maa fi amul fonction. yow ngay ruube yow yaay ruube kon maa ngi leen di nuyu yéen borom kër yi. waaw sax. waaw di nuyu waa Sénégal yëpp. Ah, di euh, jaajëfal euh, ñi nga xam ni ñoo nekkoon ca Touba. cum dama bu sell ba. moom la ñuy ibbee sax. ah mhm. di nuyu euh, xalif général yépp yi nekk ci. Sénégal Sénégal. Mhm. borom makaarimal axlaa xam naa ni coono ak màggal gi jàpp na ko. ndeysaan sëñ Abdou Karim. sëñ Abdou Karim Mbacke. Hmm, hmm. léegi la ma euh, sëñ Fallou Rahman woo. sëñ Fall wax naan boo borom géejawaay. wallaay borom kun. def ci gàmb def ci màggal gi lu lu doy waar. moom sëñ Fallou Rahman wallaay. ndeysaan def ci màggal gi lu doy waar yàlla na ko sëñ Touba fay. amiin amiin ak képp koo xam ne rek jël nga sa alal. Hmm. def ko ci màggal gi yàlla na la ko. Serigne Touba Faye hmm. ak Seydina Mouhamad mi nga xam ne dafa nii nañ ko ko santale ndeysaan ñi ci génn àdduna it loolu tamit dinañ ci ñëw waa yal leen yàlla xare àjjana dinañ ci ñëw waaw dinañ ci hmm. ñëw waaye bëgg naa tamit hmm. ñu waxtaan ci li nga xam ni waaw ah, nu yógoo sëñ sëñ sëñ sëñ Abdou kii de kan mu sëñ Njóogu nga ni sëñ sëñ mu sëñ Njóogu waaw nuyoo boo ko de ah waaw kooku mooy dugg ci biir màggal gi ah waaw day dugg ci biir màggal gi moom ah, borom màggal gi dama ko dencal ñaareelu parti ah ñaareelu parti bi waaw ah, kon nag dama amoon ci lu ma bëgg ñu waxtaan mais loolu waaw bu ñu nuyoo pare waaw dafa dugg ci biir uh, màggal gi moo tax du waaw dafa dugg ci biir li ngeen bëgg a waxtaane moo tax du ma du ma xuus ah, moo tax da xaar damay xaar damay xaar uh, loolu ngeen di waxtaane pour ma waxaale ko ci parce que c'est très important jeex na kon nuyu naa ñëpp kon jeex na waaw alaaji waaw Ndiaye damay njëkk a nuyu. Baro Baro. saa tey saa dara tey moom xorom la ci ngoon. cin waaw bu ñëwul euh, dara du dox. maa la ko wax. di la nuyu Ndiaye. fay naa la sama waa ji. waaw nga indi couleur couleuru jàmm. sa njaxas rafet na de. waaw njaxas bi yaa ngi koy xool nag. mais li nga def sa baat bi nii moom. waaw loolu dinañ si ñëwaat boo ko waxuloon Marus dinaa si ñëw. lii eh, waaw. <laughs> kulus bi waaw kulusuñ bi. lii bii. da see am yaakaar na borom bi sama bos la ngaa ma defee am loolu yàlla loolu ñaar la si defar nag saa waay waay li ngay def maa ko moom di nuyu alaaj Sanex Samb excellence fi nga génn baax na Ndiaye di nuyu waa Sénégal ñëpp waaw di dem nag ci hôpitaux yi comme ni ma koy defee après xam naa di nga dem ci homme de tenue yi comme nga xamante ne nii moment yi nga xam ne ngoon ngi daw nekk si ay tawat leen ko nag amiin amiin yaa di di ñaan yàlla génn leen teg leen si yoonu njub di nuyu nag di félicité. waaw homme de tenue. waaw xamoon naa ko waaw. ndax Ndiaye. yaa ko féetewoo de. li ma gis gars yi def ko ci màggal gii. Ah, ndeysaan muy gendarmerie. waaw waaw police di police. Hmm. di sapeur pompier. ndeysaan di douane maanaam képp kuy sol oh, euh, service d'hygiène. waaw tenue rek maa ngi naan la big respect. ndax taxawaay yi maanaam euh, da ngay ne. Mm-hmm. population bi ak homme de tenue. gis nga capitaine Malick Faye mii. waaw chef mooy chef routier bu gendarmerie. waaw capitaine Malick Faye. li ma doon envoyé ci màggal. waaw. waaw gis nga ñëw ñu ngi buñ la joxee nga war ko xaaral da nga ko war a envoyé maawo parce que Ndiaye waaw waaw uh-huh. da ngay daw a daw gis ñu teg check point waaw duñ la wax wàññil de boo gisee yaay wàññil sa bopp yaay wàññil sa bopp da ngay ranger accident yi hmm. sapeur ñëw taxawu hmm. kon dinañ ci ñëw ginnaaw dañ ñëwoon nañ nuyoo rek ñu dem nag tey benn village bu tudd Ngérène Fass Ngérène Fass Ndiaye ndekete ngoonal adduna bi yëpp a koy seetaan ah laa ilaaha illallaah te ñi ci village yi waa mën naa nit ñi seetaane sax. maa la ko wax dafa ëpp. wallaay ndeysaan donc euh, loolu ngeen fi waxoon mi ngoonal tour waaw il faut mu am 2013 ba tey ñu ngi si. waaw bëgg naa ñu changé waat concept bi. waaw dem lu mel ne village yi. dëgg la dafa ngoonal. nañu waa village yi xaar. gerte yi ñor na. waaw oh, mboq oh. yi ñor na mboq yi oh. ñu pëtam oh. ñereñ. Ndiaga Ndour xanaa dégg na li nga wax nii. loolu loolu leneen la sax. waaw dëgg la ngoonal plus. waaw kon dinañ ci ñëw ci kanam. incha allahu rabbi. kon gars yi defe naa ne da baro dama bëgg nga jàppal ma Taara wala Samsidine. parce que ci Touba la ñu dugg. dañoo jóge ci màggal jóge ci xéwl gu rëy biir Sénégal saa nga am lu bari loo ci war a wax. am naa am naa lu am solo la. kàddu gaa ngoog doxal doxalal. nga màggal gi. Mhm. war nañ ci jël yu gën a yaatu. Mhm. yu gën a ferme. Mhm. est-ce que sentil ngeen ni at mu jot bu ñuy dugg ci màggal nit ñi dañuy gën a bari. oto yi dañuy gën a bari. léegi cinq jours avant màggal gi la embouteillage di commencé am ci autoroute à ma defe ni chauffeur yi war nañ leen defal benn formation boo xam ni. dafa naan nag affaire bi jégg na ay wax. dafa àgg ci formation wala mu àgg ci ay daan. Mm. parce que yenn yi dafa yomb màggal jot walla gàmmu jot. ñu ngi ci gàmmu sax. Mm-hmm. nga yor sa oto man parce que dama dem ci internet bi xool accident yi ci am yëpp. Mm-hmm. mu leer na la ni indiscipline. Mm-hmm. moo lar accident yi. rax na si mhm. Mhm. xoolal benn ndaw sa car euh, bi nga xam ne dafa këppu daanu ñetti nit dee ci ak seize blessés yi dont trois graves nee na chauffeur bi dañ ko naan ko wàññil wàññil wàññil wàññil muy xuloog ñoom. yow ñi fay seen xaalis ngay def naka sudul noonu. Mhm. ñu dem ba tiit ci ni ngay dawale. di la ñaan ngir nga wàññi. ci ngay dawale. nga leen di ñàkk a ak di la njaay day da bëgg këpp oto bi. xoolal loolu. xam nga lu bi ma ko seetaanal lu mu doon wax. ka ko doon interview ba tàllal ko micro bi ni ko yow yaa doon dawal mu ni waa mbaa gaañoo mu naan loos wi daal mooy xaw a mitit tuuti rek. am mitit bi may yëg daal mitit bi may yëg daal ci ci loos wi daal laa ko yëg. fekk yow yow yow rey nga ñetti nit dem nañu barsàq. Hmm. yow ñu bàyyi la nga am jotu naan loos wi moo doon mitti te demoo kaso. Hmm. dañuy rey nit ñi ñu bàyyi leen ñoom ñuy dox ci dëkk bi noonu. war nañ si wut ay matuwaay. Hmm. bu hmm. war nañu constater accident bi lan moo ko indi. mooy dëgg. lu ñaf la ci kaso bi. bakkan dafa foor un an nga dugg ci kaso bi nga xam. bakkan daa fort. gis nga dëkk bi tant que àggu ci nii àgguñu ci. démocratie bi dafa ëpp ci Sénégal ñu tibb ci sa poos. c'est wala ñu tibb ci sa ci sa ci sa ci sa liberté. dëkk bi indiscipline bi fi nekk du fi jóg. nit ki li gën a sensible ci moom mooy poosam. ak liberté mm-hmm. saa su sentiree que bu ma jalgatee ñu tibb ci li muy def dina ko teg ci yoon. Mm-hmm. maanaam ay daan. woo ñu tibb ci sa koppar. Mm-hmm. wala sa sa sa jox wala ñu tëj tibb ci sa liberté. ñaar yooyu nga fayee ci benn. Ah, mais li oh. ñu rey ci nit ñi teguñu ko fenn. lu mais yow sa Ndiaye benn benn saa neex sàmb am ab Ndakaaram bëgg a def cinq aller retour Touba ak Dakar. mënut a nekk nag loolu vraiment wax nga ko ba sonn. yoon wax benn chauffeur camion. chauffeur titulaire bi tëdd di nelaw ci gannaaw camion bi jox ko apprenti bi. apprenti bi apprenti bi ni réel rey ay nit noo doon def mu ne moom daal sentirul la moom da doon nelaw. et. kan ki doon ki doon dawal. Hmm. ay damay nelaw ay damaa damaa dëgg feneen fekkuma fa dara ay ay ay xaw ma nu ma def ba oto bi daanu ay daf maa bett. léegi ab dafa yomb trop c'est ay jinne daaneel oto laa gis. ay rab laa gis nag. mais du dëgg. Hmm. c'est de l'indiscipline. Hmm. chauffeur si daf ci am ñoo xam ni. amuñu yar amuñu teggin. Hmm. dinañ fi invité sax dañuy yab ay nit di leen yamale ki mala. yow sa dëgg il faut ñu jàpp leen chauffeur soosu. man maa nañ ko wër chauffeur yooyu def nañ leen wër tëj leen. dañoo dafa foor bakkan dafa fort te à part sëñ Ndiogu. waaw ah waaw waaw sëñ Abdourahmane Mbacke mu sëñ Ndiogu Mbacke nag. moo woote woon ca Touba. demoon nga yow. ah man nag euh, non demuma. waaw da ngaa woon. waaw waaw waaw waaw demuma nag waaye. sëñ sëñ Fallou Rahman. waaw ak ñoom maam Bousso. waaw ak waa kër sëñ Fallou Rahman yëpp dajaloo nañu. ndeysaan def convoi dem. waaw teewal la fa. waaw màggal gi neex na wax dëgg yàlla. ndeysaan waaw tey sama waaj. waaw ñi ci génn àddina. Mhm. yàlla na nu yàlla yàlla na leen yàlla xare àjjana. amiin yaa rabbi. yàlla bu yàlla na ñu rëcc lu ñu lu ñu yàggee woon fii ci àddina. wala lu ñu jaaroon amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi waaw amiin yaa euh, xel day fàtt. waaw. Mhm. te ngoonal ginnaaw tey dafa am lu mu tombeel mm. mu génn àdduna alaaji Moustapha Guèye waaw ndeysaan borom yàlla rek a xam borom yàlla rek a xam ndeysaan mm-hmm. xamoon nga paa boobu waaw Moustapha Guèye donc bu ñuy def plateau bi baax nañu rendre ko si hommage ndeysaan jaale parce que ni mu delloo diine Sénégal bari ndeysaan wallaay ñu ngi koy ah, jaale ginnaaw ñu ngi wax si diine uh-huh. ñu waxaale ko di jaalewaal tamit doo sekk suñu xarit. ndeysaan doo waay jërë baadee doo sekk monument la woon biir Thiès. ndeysaan jaxaw doo waaw doo sekk ndeysaan ñu ngi koy jaale borom autorisation waaye Njaay damay ñëw rek man si li Samb wax mhm. muy nañu yaru mhm. ndax xaw ma am na mhm. xaw ma amul mais après màggal gi am na vidéo yu doon circuler ñu ne ay xale yu jigéen nii lañ doon màggale biir Touba. <laughs> xaw ma nag am na. allahu yëxlam xaw ma lu ñu monte la. ma ne parce que xaw ma enquête ñu ngi ciy enquête am déet. yaakaar ne. ku dem ba Touba. Hmm. loo fa yóbbu wala nga bëgg ko fa di ci am ba mat sëkk waaye boo fa yóbboo safaan di nga ci am ba mat sëkk ndax borom bis bi fawul muy euh, borom màggal wallaahi wallaahi di di bëgg rek si waa Touba ni nga xamante ne yaatal nañ ko gan ñi mm. parce que Ndiaye mm-hmm. bés boobu euh, promotion la ndeysaan man ba ñu ñëwee kër gi ñu daloon ma leen di nuyu muy waa kër sëñ Modou Diouf mm-hmm. dañoo génn seen néeki nañu néek yaa ngoo ndeysaan kon ginnaaw def nañ ko Touba. Hmm. Samb wax na ci. Hmm. xalaat nañ ko defaat Tiwaawan parce que gàmm gaa ngi ñëw. dëgg la. ñuy wax rek ne bésub Seydina Mohamed mooy ñëwaat. wallaahi sallallahu alayhi wa sallam ay sinabak ay whatsapp ak. ay tiktok ay gàmmu validé. senegal ay màggal validé nañ am yaru dañoo dof rek. dañoo xamul rek waaw Sénégal nañ yarub. donc loolu rek laa doon lancé. xam nga man li ma lay wax ci loolu alaaji. Mm-hmm. keroog wax nga ko fii. origine màggal. Hmm. nga ne ba sëñ bi di dem la. ci métit ba muy dem ci métit mu wax lan euh, kaa leen santale ma yàlla parce que dem bi laa amee lu ne kon xam nga leer na mhm. saa sëñ bi ba muy dem la ne bis bii kaa leen yàlla mhm. xam nga tey senegal mhm. il faut ñu wax ci tuuti rek parce que wax ja bëri na trop waaw ñiy diingat ñi taxaw naan dañuy diingat waaw ku diingat da ngaa amul dégg xel mooy dégg yàlla suñu borom xel la ñu wutale ak mala yi ba mu la joxee xel na la yéen borom xel yi lay waxal boo yuusul sa xel na kon mala nga loo loo bëgg wax foofu Njaay ki moom màggal gi hmm. mu ne bis bii bu ñëwee kaay leen ngeen santal ma suñu borom hmm. kon kan la màggal ku dul suñu borom suñu borom waaw kii taxaw daan yàlla rek la war a màggal waaw bisu màggal yàlla la ñuy màggal waaw c'est clair hmm. xam xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga Cheikh gis nga les personnes aigries <laughs> resteront toujours aigries mhm. ah, gis nga ma dolli la ci beneen affaire gis nga ñiy lànk dañuy bañ rek ñiy lànk waaw dañuy lànk rek mhm. oh. bu ñu nangoo rek du oh, dëgg ci ñoom seen i pexe jugul mhm. suñ Tuubaa waxul ni kaay leen màggal ma déedéet <laughs> ah! kaay leen santale ma suñ Tuubaa waxul ni bu waxtu yi jotee màggal leen ma kaay leen santale ma suñu borom dafa ne kaay leen santale ma yàlla. leer na. te it fu waay mu ne. def ay salaatul alal nabi. waaw def ay laa ilaha illallah. waaw ne yàlla sëñ Tuubaa. moo ni woon bu waxtu wi jotee. nanu ànd ak moom. màggal la àdduna yëpp màggal la. récité eh, xasaay yi nga xam ne alxuraan la waaw léeg-leen tokkoon ni sax yàlla chaque jour nga ne allahu akbar yi màggal ko waaye dee leen ma santale leen ma yàlla kon ki wax li muy wax waaw xam nga eh, bu ma la ni woon. kooku yàlla mere na ko bu ma la ni woon. le 7 janvier bu ne. waaw. deema gërëmal Aziz ñaan mii. waaw. yàlla na yéex ma génn àddina. waaw chaque 7 janvier di nga woo Aziz ni ko. waaw. sant euh, saa waxoon na ma ni ma sant la. waaw est-ce que xam nga ne yoolu yàlla da koy da la ciy bindal tuyaaba. mais dëgg la parce que yàlla nee na ku santul nit doo ma sant. wallaahi azim. nañu bàyyi dii ñett nañu bàyyi. lëndëmal nañu bàyyi hmm. salteel nañu bàyyi ñaawal santale ma yàlla santale leen ko yàlla gis nga oh, mu jeex mu jeex gis nga tey boo xoolee tabaski sant la ndax Ibrahima dafa sant reyul doomam ka waroon rey dafa sant kenn reyu ko soxna si dafa sant Jibril mi indi xar mi ra remplace ko dafa sant te loolu la def ba tey ñun sànni jamra boo demee ñi ngi sànni jamra li Ibrahima defoon la dañ cee roy. wallaahi. xam nga boo nangu nangulee ne. seytaane ñaata fan la màq ñaata fan la ci ci ci màq bi bu commencé li nga war a def ba ba muy jeex. dix dix jours dix jours. est-ce que xam nga màq ku fa dem billet d'avion ba. hôtel bi ngay tëdd. mbalaan mi ngay mi ngay mi ngay laxasaayoo. ndox mi ngay naan. Mm. ak lépp loo fa def. Mm. da nga koy fay. Mhm. Touba boo demee 15 jours après màggal loo fa def doo ko fay. <laughs> ak 15 jours avant màggal te loo lekk doo ko lekkaat. <laughs> loo naan doo ko naanaat. <laughs> fi ngay tëdd doo ko fay. fi ngay sangoo doo ko fay. li ngay lekk doo ko fay. li ngay naan doo ko fay. xam nga xam nga lu ci gën a neex. lu ci gën a neex. loo ci def dërëm. waaw mu doon ñaar fukk. waaw xam nga dafa am benn man loolu je l'ai vérifié personnellement. waaw waaw waaw tëkkale wu ma nag màkkaat. personnellement dama ni la rek. nañu xam ni loolu rek ak cant yàllaa ngi ci ñi jël seen alal yooyu ay millions di ko def ci ay lekk di la ko jox génn seen néeg di la ko jox rek nga ciy am bànneex boobu rek loolu rek ak cant la ñëwal ñu daane foofu xam nga tey boo nangu le ne Iblis suñu borom da kaa may mm-hmm. yàlla ku ko liggéeyal mu fay la waaw mm-hmm. dafa liggéeyal suñu borom mu faye ko li mu ko fay mm-hmm. may ko doole mais boo nangee ne ko may kële war naa mën a may kële ah, dëgg dëgg junju la nag doy na borom xel waxal waaw na tàkk li ma la wax daal saa incha allahu rabbi comme li nga wax sànq année bu ñëw màggal day gën a rëy année bu ñëw màggal day gën a neex année bu ñëw dañu gën a sant yàlla di gën a màggal suñu borom incha allahu rabbi te ku ci def dërëm ren ba déwén da nga yokk gis nga mos nañu dem benn màggal Touba benn exemple bu ndaw rek ñu avancé daam seen ndeysaan mu ngi amee rek ñu ngi koy nuyu de passage mag Aziz mi di dugg ci jumaa ji daam nekk ci rang ba mm. ñun ñu jiitu ko mu génn ci rang ba ñëw na ma eh Cheikh Ndiaye Aziz cent franc yi dugalal leen ma ko waaye ci xabru sëñ bi nee leen ko àgg gu ma ndax rang bi daa seere nee leen ko déwén damaa bëgg yokk waaw wax naa waxale ma ko barke alxuraan nii laa ko ko waxale ba ñu sànni cent franc ba nga New York te ci déwén ba la daam seen tas aduna bi ci la aju ko ba tàq beeg yëpp génn ci la daam sax tàq jënd ay oto lu ne tabax ci këram kon lu ci waay def dërëm déwén mu yokku incha allahu rabbi kon nag tey jii damaa bëgg ñu waxtaan waaw si fan tey bu ñu am invité kon tey waaw ah. non am naa benn ay gars waaw man am naa ku ma woo te yëgalu ma leen ko ah. Ah. waaw non parce que am naa ku woo te leen ko la eh, am nga waaw am naa invité man am naa ma woo te am naa invité Biram Thiam borom mbaaw mbaaw waaw waaw mbaaw xam nga mbaaw ku ne mbaaw ne lébu mbaaw histoire la de ku mbaaw ne lébu waaw yow gisuma ni Sénégal waaw ku ne Sénégal ne Cap Vert waaw gis nga lébu yi. waaw. ak a hmm. la ilaha illallah. lébu. waaw ñëw a hmm. solidaire. gis nga histoire ngi wax naan. Hmm. ma waxati xam naa ne. waaw ah, waaw déedéet yaa ngi préparé su ma waxee nga weddi ma. ndax tax mu nga loolu. non lu ma la weddi. <laughs> tey le professeur Cheikh Anta Diop. waaw savant bu mag la woon. isaan ak amoon xam-xam. dama koy liir. est que xam nga yi xew nii waxoon na ko. yu bari. dama koy liir. mu xamal ñu ne lébu yi. waaw ñu ngi jugee Égypte. loolu mhm. loolu du ma ko weddi. am na nag ñu ko weddi am na yeneen professeur yu nga xam dañ ko weddi. mais man ak séeréer yi tamit dégg naa foofu la. waaw waaw xam nga lébu ak séeréer yi am nañu ressemblance. dinañ ci ñëw après dinañ ci waxtaan ak ay lébu. waaw donc ñu ne lébu yi ñu ngi jugee Égypte. waaw aw ci océan Atlantique bi. waaw mhm. océan Atlantique bi. Mhm. xam nga lu tax du ko weddi. waaw parce que wóoruma. <laughs> Eh, eh, loolu ma ko parce que wóoru gis nga dañoo jaar ci océan Atlantique bi. waaw di ñëw. xam nga àdduna noonu la doxee. ba nga jógee Égypte. waaw ba ñu ñëwee Soudan. am na ñu fa des. waaw ba nga ñëwee euh, am na ñu fa des. waaw ba nga ñëwee Niger am na ñu fa des. ba nga ñëwee Sénégal am na ñu fa des. am na ñu des Fuuta. Hmm. am na ñu continuer continuer ñëw ba Ndakaaru Cap Vert. mooy les lébu. te loolu c' était avant 1444 avant 1444 bay portugais yi di jël Gorée. avant maanaam lébu yi. Ah. ñoo jiitu Cap-Vert gii que tubaab yi sax. ah ñoo leen fi jiitu waaw moo tax ñu moom Dakar. mooy wax ñu naan lébu lébu borom Dakar. moo tax ñu moom Dakar. Ah. parce que euh, portugais yi ñu ngi fi ñëw en 1444 wax naa leen ko fii keroog. waaw boobu fekk na lébu yaa ngi fi. Hmm. ba portugais yi ñëwee nag. fi lañ leen fekk. waaw ñu nangu ñu nangu Ndakaaru ci lébu yi. ah waaw portugais yi. Ah. nangu Ndakaaru ci lébu yi. waaw français yi ñëw nangu ndakaaru ci libu yi waaw waa damel bi Kayor. damel damel damel Amar Amari Ngoone Sobel. waaw jamono jooju moo nekkoon fii Amari Ngoone Sobel. ñoom dëcc fu ñëw. ah a ah, non pas Amari Ngoone Sobel Amari Ngoone Kumba Faal. pas Amari Ngoone Sobel ma ay lebo nga fi. waaw bu ma la wedd bu lebu ñëwee. ma la ma la parce que ni ngay wax euh, euh, euh, yi. Ndakaaru Cap Vert gi. waaw lebu yi di ko xeex nag. waaw di ko xeex. di ko xeex ba jot seen indépendance en 1790. Hmm. la Libye jot seen indépendance li ngay wax mën na nekk dëgg parce que xam nga lu tax da ngay joxe ay chiffres. waaw 1790 lañ jot seen indépendance ba créé nag seen gouvernement ñoom. seen république. loolu lébu am jaraaf. am jaraaf waaw waaw waaw. am sëriñ dakaar waaw premier sëriñu Dakar. waaw mooy Jal Diop. waaw moo doon président de la république. Mm-hmm. jaraaf jaraaf moo doon. moo moo doon moo doon moo doon kii euh, comme comme euh, euh, sécurité bi sécurité. intérieur. inti intérieur a ah, sécurité ah jaraaf mooy ministre de l' intérieur. waaw mooy jaraaf. waaw kii. justice saltige. saltige. Mm. Mm. moo moo moo doon kii yi. préfet yi. non non moo doon moo dee du gouverneur saltige moo doon saltige yi saltige ñu yoroon affaire nit yi. waaw affaire affaire. Ah. waaw waaw yooyu moo doon saltige yi. waaw les saltige du Kayoor. moo doon ministre pêche. waaw bargeej waaw. xanaa bargeej yoo jogo maay. waaw waaw xam nga loolu yëpp olof. Hmm. lébu moo tax ñu naan olof. Hmm. bu fekkee nag lébu yaa ngi fi tey. woo leen ñu ñëw après. waaw man man ki ma woo demu la. waaw animu léeg-léeg bu ñëwee dama weddi li ma wax ni non waxuma ne dina ko weddem déedéet. <laughs> dafa amoon peuple bu. waaw moom moom lan mooy problème moom day wax ba pare bëgg a weddi boppam moom ci boppam. <laughs> ah waaw moom day wax te li muy wax du ko wóor. olof daal lébu moo tax ñu naan olof ndax. Uh, wolof waaw loolu yow kan moo la weddi. wolof yow da nga ko weddi. weddi mu ko de pardon da ngaa weddi. Ndiaye est-ce que amul lu koy weddi si. man weddi wolof daal wolof daal la nga jógee ci lébu moom wolof waa lof waa lof waa lof dafa am benn peuple bu tuddoon lof waa lof dafa am peuple bu tuddoon lof ñu ne leen waalo waa lof gee. mag ah. waa Thiès. Ah, waaw waa lof gee waa lof. Ah, ana ana ana gan gi fa la wolof jógee. ana gan maam raad na ñëw ñoo bokk ak moom eh, kër gi. mais sa bi am da ngeen ma fàtte. gin biram jege ci gin gi cëram ci gin ci gin ci gin. gumbeleen gumbeleen gumbeleen dañuy door daw am yàlla yaa wàcce gumbe mu di seytaane ku ñu bëgg ñu bëgg ko ku ñu bañ ñu ñuy wàññi noppi ca moom boppam dara bu ko neex lay lakk <laughs> waaw casaan nañ ko fu ne waaw mais ndeysaan maam raan ngay sama xarit maam raan li nga def jëm dang maa yëndu ah <laughs> ngay sama xarit bàyyi la ma baab ko waaye pour mu dëggal li ma wax waaye. déedéet doo amul baab fii. conteneur yi wax na nga fi fekk. conteneur yi wax nga fi fekk. Hmm? xaw ma noo koy hmm? déchargé. bàyyi na nga dictionnaire. <laughs> lu yoon. waaw mais. waaw mais maa ngi nuyu waa plateau bi. di wax ne eh, sama gars yi da ngay def def la yow. déedéet du cadre boobu xam nga eh, Ndiaye. Uh-huh. yéen da ngeen a nekk ay nit ñoo xam yàlla def na da ngeen may daaneel parce que li tax ngeen may daaneel mooy émission bi dama koy seetaan bu ma nekkee sama kër. tout temps day bokk ci li nga xam ne dama koy seetaan ci télé bi. parce que li ngeen fii def dafa bëri loo xam ne daf ma yitteel. muy li ngeen wax ay valeur hmm. te. Eh, nit ku nekk da ngay bul fàtte la nga xamante ne fa nga bokk mm-hmm. valeur doon loo xamante ne ni tey jii xaw naa raf ci réew mi mm-hmm. kon donc damay nuyoo ba pare doog a dugg ci li nga xam ne mooy émission bi li ko tax a jóg waaw may nuyu ñi nga xam ne ñoo nuy seetaan euh, di nuyu ñu ma bokkal palaato bi ñëpp parce que ñun euh, familan parce que mm. képp koo xam yaa ngi doke si télé bi rek dafiy liggéey mm. bu yàlla dogalee tey ñu invité ma ma toog fii di waxtaan ak yen loolu day doon fierté boo xamante ne mbégte laa ci am ndeysaan ma leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu borom yi nga xam ne fi mu ko jàpp ah, tant que émission bi jeexul du bàyyi mm-hmm. waaw moom moom yaakaar naa moom kenn du ko lam-laamee ci rythme bu mu ne euh, may nuyu waa Thiaroye di nuyu ñi nga xam ñooy euh, askanu lébu mm-hmm. ñi nga xamante ne ni tey moom la ñuy waxtaane di nuyu waa yëmbal gi nga xam ne fa laa juddoo di nuyu ñi nga xam ne ñoo bëgg Mamran ni ma ko tàmm waxee ci émission yi nga xamante ne moom lan may euh, euh, moom laay def man ak Aba. Mm-hmm. hymne national la bu ma nuyoo ñi nga xam ne ñooy euh, fi ma dëkk mooy Thiaray nuyu yëmbal damay nuyu ñi bëgg Mamran parce que ñi ma bëgg bari na te dem fu nekk jox leen loxo ne ja saafoontoog ñoom comme fii rek laa mën a toog wax leen ne yàlla na yàlla defal leen jàmm waaw ah, bi daal ci noonu laa koy defee rek mm. pour ñu dugg ci émission waaw kay léegi ah, ah man bala moo nuyoo nuyoo ah, dafa rek nuyoo boo xam ne laa bëgg nuyu parce que waaw am na loo xam ne si moom laa ko déggee sax. ndeysaan neen def. nene. voilà lii. <laughs> Ah, kan maa ngi ko déggee. Amina ah ko ah. mu ne kooku nekk moo koy wax. ndeysaan ndeysaan ma taal euh, Dakar ne dort pas. waaw dégg waaw dama fay dugg sax parce que comme sa doom ni mu mel noonu. man xale yëpp noonu lañ mel ci ah, man. Mm-hmm. ma doon nit koo xamante ne wax dëgg yàlla amatuma droit reculer ci lii ma nekk. Mm-hmm. parce que damay def loo xamee comme na ngeen def boobu. Uh-huh. su ma génnee xale yi dañ may topp. Mm-hmm. man ñi ma dëkkal miisagun ma ba léegi nii saa bu ma euh, génnee di liggéey si dañ may topp xale yi na def surtout bu nu wàccee ba ma dajeek ñoom mu doon loo xamante ne nii damay wax ne lépp loo nit di def di ko wax di ko génnee ci gémmañam rek mm. na kay xool parce que xale yi dañ ci bamtu ka bamtuwaat dëgg la donc man su ma génnee du ma damay fer ci sama bopp mm. parce que na def li ka waral groupe whatsapp yi ma bokkoon la mm. mënu ma ñëw di cité kenn ku ne mën a la nanga def bu ma ñëwee rek dama comprendre nga. lii bu defee waa ñëpp xam ne. mais naa ñëpp. yow kenn mosu se see woo proposé la si xaalis li ngay wax nii neen def bi. waaw euh, xam nga tax ma comme mel na tey suñu partenaire bi Sonatel. Mhm. war na ko mën a jël dugal ko ci. tonalité yi affaire yeeg waaw bagage yooyu. boo décroché. ndeysaan mu la ko au moins. waaw mu am si retour. mu am si retour daf moo ko créé. parce que na Youssou ko ci kooku créé woon. Youza waaw Youza waaw mu ne kii moo ko créé fexe leen mu lekk ci xaalis. wallaay dina ñëw di ci lekk xaalis. waaw waaw mais kon yomb rek comme danoo ñëw ci. Euh, ci lébu gi waaw ci lébu gi. waaw dama leen di bàyyi ñu développé rek. bu ko defee ñu wax ci xam nga da fekk may teg samay bagage. waaw bi dama Thiam yaa ngi ñëw. mais Birama Thiam Birama dina ñëw après. Ah. Birama xaaral rek ba ba ñu toll ci mbaaw. Ah. ndax damaa nekk di wax historique wu lébu yi. Mhm. wax ba ci Cap Vert. Mhm. ne lébu yi fu lu ñu composé woon fii biir Ndakaaru. Mhm. maanaam tey Gorée. lébu yaa fa nekkoon. démb barki démb tey doo a ñëw. bari ñi. lébu yaa fa nekkoon. mbaaw. lébu yaa nga fa. Tëngéej. Tëngéej. Petite Côte bi. ay mbuur ay yeen ay mm-hmm. yooyu ay kayaar mm-hmm. ay kayaar mm-hmm. ah boo ñëwee biir ndakaaru nga ne yoof nga ne wakaam Cambérène sax c'est récent ngor yoof ngay wax ah, nga ne nga ne nga ne ñaay cokkeer ah ah ak ak ak yeneen ak yeneen ñaay cokkeer kan ñaay cokkeer mel na quartier bu la woon de ah. dafa bokkoon sax ci ci ci ci euh, ci penc yeeg ñaar yi. Mhm. dañ fa daan jëlee décision ñooy. ñaay ah, jokkee ak li may wax. Ndiaye ma nekk ko Ifan du ñu ko nëbbu ah waa jéet léegi nag yow waaw waaw léegi yow. Mhm. lii ma wax ni ci histoire lébu. Mhm. lan nga nu ci a wax. balaa ñuy dugal suñ suñu gan gi. waaw euh, histoire lébu dafa yaatu. li nga limee noonu. ndax yow nangu nga ne Égypte lañ jógee li Cheikh Anta Diop wax xam déet. waaw ndax histoire da koy wax. waaw histoire li boo ko toppee dafa yaatu yaatu goo xamee ñun lin bu nu toogee fii li liñ ci xam rek la ñuy wax. am na loo xam yow ndax xamoon nga ni foofu la ñu jógee waaw wala déet. waaw dégg naa ko ci histoire. yow pour yow fan nga jàpp ne fa la léegi jógee. waa lébu fi ma fi ma fi ma fi ma euh, li ma li ma gëm man mm. ak li nga xamante ne ni tey jii moo moom moom laa gis mooy que ne kenn ku ci ne ak yow fa ngay xalaate ne foofu la lébu euh, jóge comme li ngay wax nii ci Égypte mm-hmm. am na ñoo xamante ne nii buñ toppee histoire parce que kenn ku ci nekk am na fu say maam jóge mm-hmm. ba ñëw fii mais li nga xamante ne ni tey ji mooy histoire lébu bi nga xamante ne ni tey gën nañ koo miin tey dañ lay wax ngor yoof wakaam mm. tubaab jalaaw parce que am na ñu bëri dañoo jàpp ne euh, lébu gi dafa yem fii ndakaaru mm. mais boo génnee ma fii ay tubaab jalaaw mm-hmm. ay minam petite côte xam nga petite côte bi yëpp lébu yi ñëw foofu parce que ma mag ñi noon lañ ñëwee woon fii nga xamante ne mooy ndakaaru askan la askan woo xamante ne boo ci bokkee mm. amaana tey ji askan wu riis na riis goo xamee noo xam lépp waaye li ci ëpp solo boo ko xamee mooy dignité. Mm-hmm. loolu am na lébu euh, dignité am na ko ba nga xamante ne nii tey jii moo taxoon ñu daan lébu yi danoo dof. mbaaxoon mm-hmm. na ba ba ba am na foo xamante ne bu fa tolloo moo waraloon ñu ñu teguñu leen woon sax euh, que ñii li ñuy def nii est-ce que nit dina ko def. Mm-hmm. parce que miin ñu woon nit tey am na ñu bëri ñoo xam ne dañu doon jóge fële. ñëw. dëkk ak lébu lébu jël xeer jox la ne la sànnil. nga sànni hmm. bu fa sa xeer wayam mu ne la jëlal yëkki doomam may la waaw hmm. yëkki may la askan la woo xamante ne ni askan wu riis la askan la woo xamante ne ni tey boo yoree étage yéene nan la waaye boo leen yëgul yëgu na yaa ngi étage hmm. askan lan woo xamante ne nii tey ku leen yëg yaa leen moom askan lan woo xamee kenn du doon